ne kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye

université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru déggoon nañu ko ci université Gaston Berger ba ca Ndar ñu dégg ci page bu Vox Populi li Covid 19 bi liggéey ci réew mi ci 24 yi ñu génn juróom-ñaari nit faatuwaat nañu ci feebar bi juróom fukki kaa ak benn ak ñaari téeméeri kaa ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu yees ci corona bi am na ci réew mi source waa nañu coronavirus boobee ma ngay wan waa daara jorof lu dara jarul faat na fukki nit ca Linguère faat na juróom-ñetti nit ngi seet nan la ñu a def ba ñàkk seenu askan te ba léegi amaguñu tàkk bu wér ci ñàkk yu ñuy séentu ana ban moo ci gën a efficace anki dina xamal nañu ne kuréel gii di conférence des chefs d'état bu CEDEAO bëgg nañoo commandé lu toll ci millions de vaccin docteur Assane Diop di pharmacien di leeral ci xët mu njëkk anki dina kay ne ñàkk bi gën ci ñun mooy ñàkk bi nga xam ne bu yegsee dees na ko mën denc ci température bu tàmbalee ci 2 couvre-feu yéenekaay bi nee nañu couvre-feu gi couvre-fin la mujjee jur ci ñenn ci askan wi ne da leen yokk ab xiif ñii nee nañu système D maanaam di déborde lu ñu lekk ngir mën a dund loolee la ñuy def am ñeneen ñu xam le ci l'Observateur ni bi couvre-feu gi tàmbale ak léegi miskit ak meew la ñu dëkkee poñse di ko reere Walf Quotidien nañu couvre-feu gi ñu tegaloon waa Dakar ak waa Kees juróom-ñetti fan yee ñu ca yokkoon jeex na ana lu cay topp loolee la ñëpp bëgg a xam moo waral askan wi yeewoo ci Ndakaaru ak Kees daanaka kenn noyeetul Sud Quotidien nañu loolee nag daanaka mooy problème bu rëy bi am ci réew mi tegub loi mu leer ci bopp jafe ci réew mi ñoo ngi koy dund ci loi bi jëm ci ñetteelu mandat Macky Sall bi ñoo ngi koy dundaatit ci loi bi jëm ci état d'urgence beeg état de siège bi professeur Iba Bari Camara di jàngalekat gëstukat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñuy wax ci xët mu njëkk Sud Quotidien ne li ñuy suñëwal ab décret tax na ba état d'urgence amatu fi état de amatu fi couvre-feu nag moom waxi nopp ñu noppi ci te wax ci jëfi Samba Allaar ji ñu suur soi nañu moom la Macky Sall def ci société bii di la poste bëgg lu neex paayeeg maire yi tax mu daggaleen bourse sociale te xaalis bi ca poosu poste la koy jëlee dem na ba ameel poste ñeen fukki milliards ak ak ñaar liggéeykat yi gis ne ci musiba la jëm tax ñu tëgg seen gémmiñ di wooteeg wàllu tey ji ci suba fas nañu yéene conférence de presse ngir wax li leen metti Mohamed Cissé di doomi Amérique ba ñu faatoon ca Medina Baye waa ji ñuy tumaane moo ko faat di Babacar ñu gën koo xam ci turu Amadel L'Observateur nee nañu ginnaaw ba ñu ko tegee loxo far na faatu ca kasob Louga ba ñu ko téye woon li ko faat yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi wax naan da doon jéem a a tëb keneen ca la yéegee ca miir ba bëggoon a tëb ci la ko gisee na ko wàcceel mu bañ jekk-jékk tëb ci la bopp bi jiitoo dal ci suuf mu jaara ca faatu keneen a ngi ko faatu ci anam wu gaaw te yéeme la si ne xibaar bi ba xamal ñu ne moo di avocat bii di maître Oumar Diallo ca tribunalum Dakaaru fa la faatoo dafa amunub dossier demoon plaidé ko ba mu noppee bay génn ca tribunal ba ca buntu tribunal ba fa la ko malaise dale sandarma ya fa nekk woo sapeur ñu jël ko yóbbu ko hôpital principal bu Ndakaaru foofee la faatoo moom avocat bi di maître Oumar Diallo juróom benn fukkeet ak benn la amoon li am ci xët mu njëkk l'observateur doy na waar nga amee ca tëngéej mu di sa nas ndaw su am jëkkër moom la yàlla natt ba aw faram ëmbal ko mun na bu ëmb bi ba wasin jël doom ji dem sànni ko ci armeel yi journal bi nee nañu xaj yi taxawàllu fa la ñu fekk liir ba def ko jëf ju ñaaw fañ doon ragal dugg dafa yu doomu jàngoro ji day ma ngay lambar lambari nag ca biir université googe mar di tali la ilaha illallah te dama ne gis nga kaaw corona yi day saa buñ xëyee kon muy gën di yëg wax dama ne niki démb lu ci tolloo ñaari téeméer ak juróom-benn ak juróom-benn ay doomu aadama la dal allahu akbar juróom-ñaari doomu aadama dee ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Ndakaaru googee parce que ñaar ñu nekk département gestion mbir ma dal na leen ñaar ñu nekk kon génie civil googee mbir ma dal na leen ñetti ca campus boobe mbir ma dal na leen yéeni kaay déeme jaagi ne waaye yow comportement wu ñenn ñoo xam ne dañoo dëkk Jurbel gee ñaare waaw waaye ñooñee seen comportement bi yow tiitalul nit ñi ah kay waa ñoom xanaa dañoo yaakaar ne ay yàllay ndaw lañ ba war a jàkkaarloog doomu jàngoro ji a kon la Sénégal gi la war a taxawee ngir rëcc ci mbas mi le en tout cas am na ci am njàngat loo xam ne dee waa BPE ñoo ko def waaw juróom-ñett ci ay mesures yoo xam ne day buñ ko defee waaw Sénégal mën naa jël ndam li ci kaw mbas mi le limal ma gis bu njëkk ba day mobilisation communautaire nañ ca boolee askan wi yëpp de ñaareel ba mooy kattanal nag wàllum solog masque gi la wàññi njëg la ñetteel ba mooy wàllum couvre-feu bi ñu dëgg ci département yi laa la wax te bañ a yem ci ay région donc ñeenteel ba mooy dugg ci wàllum test yi la test rapide la décentraliser ko teg wàññi tamit njëg la juróomeel ba mooy gaa importé yi ñu jéem koo gérer nag bu baax a baax juróom benneel ba mooy daal yokk nag centre de traitement yi juróom-ñaareel ba ah a defar day mooy pikiir yi nga xam ne ñu koy waaj a pikiir ña ah loolu ñu jugtulu ca critique yéene kaa ne en tout cas xeex ba day xare ba dara la day diggante Abdoulaye Diouf Sarr moog nitam yi lé waaw danañ ca jug de jàkkaarloog doomu jàngoro ji surtout aane demal ca Jolof lu tolol fukki doomu aadama ñoo dee ca Linguère allahu dama ne la gis nga jolof lu tolloo téeméer ak nga xam ne moom la ñu nar a fajee kon corona gi de waaw jamonoy manœuvre d'or joo xam ne kon werante ji bëri na lool lool lool pikiir bi baax naa baaxul ah réew ñoom ña ngay a xool nag ban feem la ñuy def ngir pikiir seenu askan laa la wax eh way samba waaw xoolal kuréel gi njaboote njiitum réew yi nekk ci suñu tund wi les céréales afrique sow jant gi waaw commandé nañu lu toll ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay millions ci ay doses ay piqûre waaw docteur Assane Diop tiita pharmacien ci Vox Populi ah nee na xam nga ñun ban problème lañ nar a logistique matériel waaw ngir denc kon piqûre boobu diggante soixante degré dañuy ne boo bëggee dégg dëgg docteur Assane Diop nee waaw xam nga ban piqûre moo baax ci ñun boo xam ni mën nañ koo denc diggante de matériel bi di fajee waaw matériel ba nak Siria Njaay nee na amul ben kër wala ci wàllum structure nguur gi la buñu taxawal ngir muy xeex comité de boole ja partenaires sociaux yi amul personnel bi motivé wu ñu leen xoolal ma Sénégal lu tolo tolloo juróomi téeméer ci ay médecins junni paramédico té ki wul dara ci fukki million ak juroom ben ci ay sénégalais la la wax xolal ca Matam ge amul ben réanimateur allahu akbar la ilaha illallah mo tax juroom ben fukka ak ñent milliards yi nga xamni mom lañ duggal ngir xeex walu corona gi la Siria Njaay nee na ñun duñ jug mukk di laajte anaxa xaalis bi laaste moo ni Sénégal day a même bu dee corona bi mi ngi fi tamit day wàllum koom-koom am na fuy dox de aa waaw waaw investissement direct étranger bi waaw lu tolloog juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay milliards allahu akbar laajal Abdoulaye Daouda Diallo koor tamaro terminé yéene kaa ne terminalu Ndakaaru njaajal joob day la fa xew dee mu doy na waar maître Omar Diallo waaw belee dena di ko fa crise génn àdduna allahu akbar laas ne dëgg la de malaise baa ko yóbbu de am na ci poste Dakar dem dikk Sonacos ah ci tëj lañ jëm de maar day daali sur saane poste moom boo bëggee dégg dëgg wàllum sàmba alaara ko nara laa la wax ah, ah, waaw waaw waaye yow poste gi nga xam ne lu tolloo ngeen fukk ak ñaar ci ay milliards yoo xam ne moom lañ fay manqué di ko lekk rek looloo tax ba liggéeykat poste yi day ah danañu jàkkaarloo ak journaliste yi laa la wax ñëf direct news de horizon sans frontière day daal dinañuy tontu rek kan nga waa horizon sans frontière waaw nee nañ kàddu yi nga xam ne moom la responsable APR diaspora yooyee yëkkati seen communiqué bi ah mais day wane ne Boubacar dara taxul ñu ko loxo lu dul wàllum politique la lii dal bi te li waa APR diaspora yooyee wax day mandargaal ni suñu justice bi de mais APR la fi nekkal dafa sax ruslu nag nga naan horizon sans frontière waaw organisation européenne la bu illégal fii ci Sénégal dirigé par un espagnol d'origine sénégalaise ñañ ñañ ñañ patati patata lii daa ruslu sax laaste ñoo lànk day tas na maar day taali dëgg la parce que waa ak waa ah, génn ñoo lànk yàlla terminé yéene kaay na jaari saw day feeñ na ah, ah, waaw waaw jaari day nañ ko tonton tonton terminé yéene kaay na jaari saw day waaw yi ko mën fuuf ñoo nekk ci réew mi wax waaye gis nga jaay nañu saw médiatiser ko médiatiser doona war moo tax xale jigéen yi nekk ca day ca université waaw wax jaari de am na koo xam ne nee na man de jaari nekkul sama li ko war a nag boobu yëngu nii la xamul lan la ci xam ne réew mi yëpp yow jaari dañ laa xawa sàngane day ne gis nga jaari bu dul dara waroon naa xalaat ndeyam ji nga xam ne daa dem ba xamatul fu mu jëm jaari daal waroon naa gën a nekk kilifa daal ndey Issa Ndiaye Fasé waaw nee na jaari day warul woon a dem te waxul kenn dara loolu dëgg nag njëgee yokk waaw nee na jaari daal war naa bàyyi xel ne ñin Sénégal kii ay mbirum liberté ak yooyu ñin dañoo am ay cosaan de critique yéene kaa ne mooy Sarr de tëj na wax ja parce que mooy Sarr nee na mais gis nañu jaari nekkul en danger mais viem duñ ca dugg nañ leen bàyyi kon jaari eh way Samba libération yéene kaa ne